الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi leen di dénk ragal yàlla ñu ngi leen di dénk ngeen topp yàlla topp yonentam mboolem texe doomu aadama mënu koo dajale àdduna ak alaxira loolu dafa bokk ci ñi ragal yàlla topp ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam tey jii ñi ngi bëgg a fàttalente ak yéen lu ñu jàpp ne yey na ci mboolemi imaamu adduna bi yépp ñu koy fàttali seeni mbooloo ci at mu nekk te mooy xutba bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xutba woon na ko keroog ba muy tàggatoo xeet bi ca ajam ga nga xam ne benn aj rek la woon rasul sallallahu alayhi wa sallam ba mu daje mbooloo ma ca Arafa xutba na leen fa benn xutba boo xam ne dañ koy tuddee xutbaw tàggutoo wa loolu moo tax ba suñu jamono yi tey depuis quatorze siècle bépp at bu ñëw dana am ku ñu tànn ne mooy jiite at ji kookii jiite at ji dana daje jullit ñi ca Arafa jiite leen tisbar ak takusaan xutba leen xutba boo xam ne dafay fàttaliwaat la nga xam ne mooy suñu base diini li ñuy jural jàmmi adduna di ñu jural jàmmi allaxira loolu nag ma nga cosaanoo woon te xutbab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bu mu jógee di agsi la nga xamee ni nii sahaaba yi ko wër ëppoon téeméeri junni ci ay sahaaba te loolu mbokk julit suñ koy méngalee ak suñ jamono yi tey ay millions yu bari lay doon ñépp ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xutba leen xutba boo dee ca la yàlla wàccee aaya ba nga xam ne dana ca wax ne bis na ki tey matal naa seen diine mottali samay xéewal ci yéen gërëm lislaam nekk seen diine mu ñuy jàngal ne kon xutba boobee la ca yonent bi digle yeneen ndigal du jógewaat ca yàlla di ko folli wala yeneen ndigal du jógewaat ca yàlla di ca dolleeku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ubbee la nga xam ne moom ngeen dégg imaam yu bëri di ko ubbee seen xutba te mooy yeesal xamal ne mboole mi cant ci yàlla dongul moo ko yeyoo mboole mi dimbiliko yàlla dong la ab julit di dimbiliko bu yëgee def na bàkkaar ci yàlla dong lay tuub dellu ci moom ñaan yàlla mu musal ko ci ay bakkanam ñaan yàlla mu musal ñu ci suñu ay jëf yi gannaaw ba mu seedal leen ne ki yàlla jubal kenn mënu koo réeral waaye ki yàlla sitan ci réeram kenn mënu koo jubal muy feddli ne yàlla dong yeyoo ñu koy jaamu amma muhammad xam leen ne jaamu yàlla la du ko ñuy yaakaar du ko ñuy sukkandikoo xam leen ne nag yonenti yàlla la du ko ñuy juuyoo ko moom ci ay ndigalam gannaaw loolu mu ne ay yéen mbokk jullit yi maa ngi leen di dénk ngeen ragal seen borom maa ngi leen di dénk ngeen topp seen borom loolu muy wone ne ragal yàlla du mën a am lu dul jàng moo koy jiitu mooy jullit nga xam lu yàlla faratal ci yow nga xam lan la yàlla xaraamal ci yow keroog ngay mën a nag bokk ci ñi ragal yàlla mu ne loolu mooy la gën la muy ubbee ay lu ma leen nar a waxati xam leen ne lay caabi ja mooy loolu te it mooy la gën lu ay jullit di dénkante seen biir mooy dénkante ragal yàlla waaye dénkante la nga xam ne mooy topp yàlla gannaaw ba mu ne ay yéen jullit ñi damaa bëgg ngeen déglu ma bu baax ndax kat xawma gannaaw sama bisu tey bii danaa mën a dajawaat ak yéen di wax ak yéen ci mbooloo loolu kon déglu leen li ma leen di wax bu baax mbokku xutba boobi nga xam ne ca la yonent bi alayhi salaam ah du xutba la chaq bu doon jullit ñëpp fexe woon nañ ba ñu dégg ko ñu fexe ba ñu leen jiite ak ñay ñañ jiite ñëpp tënku ci loolu loolu doon nañu doon nañu jural texeg àdduna ak texeg alaxira bokk na lam jëkk a moytuloo nit ñi mooy ñuy bokkaale ak seen borom ay yow julit xamal ni la gën a rëy la nga war a gën a ittewoo mooy fexeel ba yàlla bu ko bokkaale ak kenn yàlla lam yeyoo ci ñu jaamoo ko moom rek ci di ko ñaan moom rek ci di sukkandikoo ci moom rek yàlla nam yeyoo ci ñu ragal ko moom rek toroxlul ko moom rek ngal la way bu ca boole keneen xam leen ne bokk na ci bokkaale képp koo xam ne dañu koy jiiñ na xam na kumpa xam leen ne bokk na ci bokkaale képp koo xam ne dañoo yëkkati ay darajaam ba génne ko ci jaami yàlla yi xam leen ne bokk na ci bokkaale am kenn koo xam ne da ngay jàpp ne moom nga doxale sa diggante ak sa borom même booy jàpp ne yàlla ngay jaamu waaye kii nga doxale sa diggante ak sa borom ba yóbbu la booy waat ci turam ngay waat ba yóbbu la boo daanoo moom ngay woo mbokk yooyu yépp ci bokkaale yi gën a bon la bokk gannaaw loolu yonent bi salallahu alayhi wa sallam daa ne ay yéen jullit ñi xam leen ne araam na ci jullit li nga xam ne mooy deretu mbokk jullitam araam na ci jullit alalu mbokk jullitam bu dara tax ci àdduna nga tuur sa deretu mbokk jullit bu dara tax ci àdduna nga lekk sa dërëmu mbokk jullit ca du teyu bakkanam daana wax ne ci xës ba gëm yàlla daganatul ñuy tuur deretam lu dul ci ñetti mbir mooy moom ci boppam moo rey nit ca tey ko walla boog mu masoona sëy ba pare di njaaloo walla boog mu génn ci diine ji te bu boobaa it du ne ku nekk daa am droit rey ko bal fokk ñu atte ko atte bi lislaam say taxe ya atte bi lislaam doogo koo rey ci diglu yàlla ay yéen mbokk julit xam leen ni keroog day yonent bi alayhi salaatu wasalaam fàttali ne mbir moo xam ni bu ci nit ñi tënko woon day dañu am jàmmi adduna avant jàmmi alaxira ca mbokk adduna loo fii sàkku rek jàmm ko gën xamal ne loo mën a am ci xéewal bu àddul ak jàmm da nga ko fa bàyyi seeti fa jàmm am xoolal télévision bi nga gis waa Syrie nañuy dawee seen immeuble ya nañuy dawee seen banque ya nañuy dawee seen xéewal ya tasaaroo tumurank ji biir Europe ngir lan sàkku ji jàmm jàmm joojee nag la koy waral mooy doomu aadama yi delluwaat seen diglu borom lu bari tey ci géeru àdduna bi da ngay gis waa réew moom neen ñooy geer ci seen biir sunu yeneen ci alayhi salaatu wasalaam daa di ne ay yéen nit ñi xam leen ne seen borom day benn la xam leen ne seen baay benn la yéen ñu weex ñi ci aadama ngeen jóge waaye ñu ñuul ñi ci aadama lañ jóge ku weex gënul ku ñuul ku xonqi gënul ku jaune xam leen ne daal doomu aadama yi fan gënante mooy ku gën a ragal yàlla rek yaa gën keneen ku dul yow nit ku ñuul ko dana gën naar ba naar ba dana gën ku tubaab ba waaye tubaab ba it dana gënub naar ndax mbir mi mooy ku gën a ragal yàlla loolu rek yaay ko gën daana waxit bi dañ mukk sama xeet ay nit ñoo xam ne dañuy bàkkoo seeni cosaan waaye da leen daan wax ni daxuha fa innaha muntina e waay bàyyi leen loolu loolu dafa xasaw dafa ñaaw doomu aadama di puukariwu ci kaw moroomu doomu aadamaam ngir man sama cosaan lii la yow sa cosaan lii la gannaaw ba ñun ñépp ñi ba ko xam iblis la ko génne ci yërmande yàlla mooy keroog bi mu taxawee ne yàlla aadama maa ko gën ndax sama cosaan sawara la ca moom cosaanam ban la lii mbokk di mbir yoo xam ni ku ne war naa góorgóorlu bàyyi ci xel islaam dafa araamoon ci ñun ñuy jalgatente di tooñante loolee ay jëf la wax naa ko sànq ci tuur deret ci lekk alal waaye ay wax la ci doomu aadama bi teew nga koy saboote di ko ayibal wala doomu aadama bi nekk fi nga koy jëw gannaawam yii yépp ay mbir la yoo xam ne nii islaam da koo araamal ci ñun bal worma gi yàlla may ab julit da koo wormal xatta bam faatoo islam daa di farataal waxuma ci ay mbokkam di waaye ci mboolemi julit ne wareef la ci yéen ak chinois jege woon na fële dee suñu biir waaye wareef la ci ñun ñu daal di koy sang ba mu set daal di koy sang suturaal ko daa di koy tiim jullee ko ca mooy ñaan yàlla jéggal ko yërëm ko gannaaw ba yóbbu ko ca armée li suturaal ko kooku nga xam ne ab julit la ba faatu lépp loo ko def ci lu ñaaw moom nga defoon ko ko ba muy dund ñoo yem yonent bi alayhi salaam ne damm yaxub néew moog damm yaxu kuy dund ñoo yem daana waxit ne bu leen rëbb ñi dee ndax lañ liggéeyoon kat ñoom yegg nañ ca bokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci taxawaayam bu màgg boobee xamal na jurit ñi na leen lépp loo xam ne ay aaday ceddoo la woon ngalawaay yàlla wàcc na ko ci sama suufu ndëgg yi ca muy julit dañoo bëgg mu am melokaanu boppam sibgat allah wa man axsanu min allahi sibga mooy julit bi nekk sénégal bi nekk indonésie ak bi nekk biir new york ñoom ñoo war a yem li ñuy bëgg ñoo war a yem li ñuy bañ ñoo war a yem comportement amma ceddo gën doon na woon suñuy moom loolee mbokk doomu aadama bi da ko war a baax yonent bi alayhi salaam bokk na ci ceddo googee la nga xam ne mooy ab riba riba boobu nga xam ni doomu aadama yi dañ ko doon jëflante bu jëkk waaye malheureusement dundoon nañ ay jamono sunu maam yi bañ ko lool daa nga dem ci dëkku lëmm doo gis ku koy jëfe waaye biñ demee ba ñii nga xam ne ñooy tubaab bi coloniser adduna bi tëral seeni xalaat amul réew mooy dem lu dul banque yaa nga fa tasaaru doomu aadama yi julit ñi di nekk ci ay actionnaire di leble xaalis boo xam ne xaalis bu riba la waaye ak ne xoon musiba bu riba yem ci waa ja nga xam ne da koy lekk waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ka nga xam ne mooy leble ñu koy tegal riba muy lekk ak ka ñëw di ko leb di ko tegal riba ak ka toog di leen seede ak ka toog di bind ñoom ñeenti ñépp yàlla subhanahu wa taala rëbb na leen loolu tax ba nga la waay yéen ndawil julit ñi xam leen ne sunu maam yeeg sunu baay yi dundoon nañ ci kaw suuf ba xëy dee yàlla suturaal leen dem nañu te mosuñoo taxaw ci banque loolu it nga la waay yow julit du ne lii xew banque yépp xaraam waaye nga la waay bu mu la fa yóbbu mukk naa jóg dem lebi bor boo xam ne ba ma koy fay damay cee teg riba mbokk cee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xutbaam bu mag boobee wëlbati ko woon na ne ay yéen góor ñi maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ci jigéen ñi jigéen ñooñu kat dañ leen koo jox ci kóoluteg yàlla tey jii ab chrétien bu ñëwoon ak un milliard ne dafa bëgg doomu jullit bi gën a pauvre da ngay gis ne du ko ko may lu tax mooy ngëm yàlla nekkul ci moom amma waaje nga xam ne amul dara ñëw ñaan doomu koo xam ne nii mën na am ak millionnaire la sax waaye mu jël ko may ko ko ci yàlla tax lu waral loolu mooy diine ji kon nag xam leen ne soxna yi dañ leen koo may ci diine yàlla ci kaddug yàlla wóolu leen ci loolu nga la way sàmm leen soxna yooyee na am am nañ àq yu ñu leen yoral waaye yéen tamit am ngeen àq yu ngeen leen yoral nga la way wastawsu bi nisaai xayra ku nekk ci yéen nay nangu dénkaane bi yàlla tey dénkaane moroomam ñu def la nga xame ni nii mooy njëkk jëmal leen ci jigéen ñi loolu it mbokk mi ngi noonu ba ko yonent bi alayhi salaam di wax léegi depuis quatorze siècle biñ demee ba suñu jamono yi tey la ñuy doog a rey ak droit de la femme ak semaine de la femme ak quinzaine de la femme waaye mbokk l'islam depuis jamono ju jëkk ya bi occidentaux yi di réunion ndax jigéen nit la am du nit ca la l'islam tëraloon daa di ne jigéen day am na àq ci lépp lu ay waajuram bàyyi farata la ci moom mu jàngi xam-xam ni ko góor ñi di jàngi am na droit am alali boppam bàyyi amu ci droit jëkkër amu ci droit et puis mboole mi jaamu yàlla yi yàlla tëralal góor ñi noonu la ko tëralal jigéen ñi tuyaaba ja ca góor di am exactement tuyaaba ja tol noonu la ci jigéen di am lii mbokk da ngay gis ni sa xutba bu mag boobee suñu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam fàttali woon na ko julit ñi bokk na ci lum leen ca fàttali et yéen nit ñi man day danaa wuji sama boroom waaye maa ngi leen di bàyyeeg loo xam ne fii ak yéen a ngi ci ngoy du ngeen réer ba mukk ca mooy téerab yàlla bi mbokk téereb yàlla bi suñu borom ak wàcce moo ko bàkk inna hadha alquran yahdi lillati hi aqwam alquran mooy jébele gën a jub la gën a baax la ëpp mucc ci yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a yorum réew yow mi bëgg a gérer sa famille yow mi bëgg a yar sa njaboot yow mi bëgg a atte atte bu maandu yow mi bëgg a am jukko yu tedd ci kaw suuf ngal la waay xamal ne alquran jooje suñu borom bàyyi lu ci lenn lu dul ni tëralal ne aw yoon boo xam ne buñ ca jaaree yàlla teral leen gannaaw ba it yàlla dana ca dolli xéewalam ubbi barkay asamaan ubbi barkay suuf mu ne bu dee ne waa réew mi day nekkoon nañ ñoo xam ne gëm nañ yàlla te ragal yàlla mu ubbi leen barkay asamaan ubbi leen barkay suuf te loolu yi bokk na lu ca jiitu ay nawet yu barkeel fay leen xam ne ñu ngi doon ñaan suñu borom ay taw jamono yi yëpp biig am na lenn lum ñu yónni yàlla na ko barkeel te dolli ci lu gën loole gannaaw loolu bokk julit xam leen ne bokk na musiba bi nga xam ne moo dal lislaam tey wala bokk ñooñu lislaam mooy ñàkk a doyloo dénkaaneb yonent bi salallahu alayhi wa sallam bi ma sàmba daggee ca làng ga daa dina jaamu yàlla gii it de baax na ma demba daggee fee na jaamu yàlla bii it de baax na ku nekk mbooloo mën a topp jàpp ne la nga gën moo gën la keneen fi yor ñu créé ay bida ca la doomu aadama yi teqali ko la leen boole woon di téeréb yàlla bi léegi am leneen du leen teqale ca mooy la nga xam ne mooy ay pas-pas yu ñu sos ak ay jaamu yàlla yu ñu sos te yooyu yépp yonent bi alayhi salaam mooy tëloo woon na ko xeet bi ne lépp loo xam ne sos nañ ko sama gannaaw bidaa la ci bépp bidaa réer la loolee kon mbokk lan moo mujj nekk résultat ba mooy teqalikoo bu dul jeex noonoo bu dul jeex bu ko defee résultat final ba doon la nga xam ne mooy néew doole la doon may julit ñi kàttan moo ñu nekk benn am maa tey jii d'accord un milliard et nangam ñiy wax deux milliards ñiy wax trois milliards waaye da ngay gis ne teqalikoo nañ teqalikoo ko mag ca mbokk bépp teqalikoo échec la mi ngi mel ni li ñu yàlla nattoo suñu réew mbokk réew mu tuutee ne Sénégal ñu waroon a ànd wala joxante loxo wala xool nu ñuy boole suñu kàttan pour soxali ko politiciens yi ñëw créé trois cent partis trois cent partis ñi ngi noonu ñi ngi nii jëm ci ay élection ana ñaata nit ñoo nar a dagg ku nekk sa langue jàpp ñu nii lañ koy defee te ñoom ñëpp mboole seen amu ci kenn koo xam ne jàpp ñu ne programme alquran ak sunna mën naa soxali réew mi loolu kon mbokk du dara du dul gën ñoo delloo gannaaw ci delloo gannaaw ga nga xam ne nii ca la ñu nekkoon su ko defee mbokk yonent bi salallahu alayhi wa sallam xutbaam bu mate la boobee nga xam ne xutba woon na ko bokk na ca la nga xam ne moom la ca mujjee mooy ay yéen nit ñi man day dinaa dem waaye danaa dajeeg yéen ca sama kanamu borom sama borom dana leen laaj ana naka laa jëflante woon ak yéen te yàlla moo ko wax wala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin képp ku ma yónni ceew yonent dinaa la laaj danaa laajit yonent yi waaw sama borom yàlla bu leen laajee ci man li ngeen di tontu sahaaba yi ne ko ay mi yàlla yónni ñu ngi seede na yow day jottali nga la la yàlla joxoon ngir nga jottali ko ñu ngi seede na yow day laayi ngi biir xeet bi ñu ngi seede na yow day kóolute ga la yàlla joxoon mottali nga ko la la waroon ñi ngi seede ne def nga ko yeneen ci baale salaam yëkkati baaraamam ba ca kaw asamaan daane na ah yàlla ay yàlla seedeel ay yàlla seedeel yàlla seedeel ñu jëkk caa dégg mbokk yàlla mi ñuy jaamu mi ngi ci kaw asamaan yi nga la way gëm leen loolu am na pas-pas yu bon yu cosaanoo ca Inde di raam di raam ba dugg suñu réew ñoo xam ne jàpp nañ ne yàlla mi ngi fépp bal yàlla muy lépp wallahi déedéet amul benn yonent bu mas a woote lu dul lam wooxee tam mooy yàlla gi ci kaw asamaan amul ñenn ñoo xam ne dañoo sori diine ak luñ ko sori sori lu dul gëm nañ ne yàlla ngi ci kaw asamaan yi loolee dañ koo war a gëm borom boobu subhanahu wa taala wax nañu ko ci aaya yu dul jeex mu ne a amintum man fi sama an yaxsifa bikum al ard fa ida hiya tamur ndax am ngeen kóolute yàlla ma nekk ca kaw asamaan ya mu xar suuf suuf doon loo xam ne lu leen di mëdd la waaye mbokk julit sahabatul kiram bi ñuy taxawee ak yonente bi alayhi salaam ne ko ñi ngi seede ne lu la yàlla santoon nga jottali ko rek jottali nga ko naam nashhadu annaka qad ballagta risalati rabbik waaw ndax nan la ñuy mën a toogati ba doon ay junni at ak nangam julit ñi mën a gëm yonente boobu alayhi salaam ñëwaat na ci kaw suuf dajeeg ay nit jox leen ay façon jaamu yàlla ay façon jaamu yàlla yoo xam ni lu ëpp ci ñoom nee nañ jaamu yàlla yooyu di ko jaamu yàlla moo gën alquran sax loolee mbokk da ngay gis ne ay mbir la yoo xam ne bépp julit bu ànd ak sa xel di ràññee ngar la way fekk ci say maam ak say mamaat du tax mukk nga gëm loolu du tax mu nga topp loolu donc xam leen ne la nekkul woon diine ci jamono abubakar ak omar ak usman ak ali du nekk diine ba ila yawmi din nan la yàlla di tànn sahabatul kiram wàcc ci ñoom diine seetaloo leen ci kanam am yonentam ba pare mu bàyyi leen bañ dem ñoom mu wul ko ci koot yi naat yonent bi ne ko demal jox ñeneen loo xam ne nii loolu it lu baax la wala loolu it lu gën la loolee mbokk wallahi amul yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne gannaaw xutba bu màgg bi lan la leen waxoon mooy déglu leen doo mën na am dootuma dajeeg yéen ah gannaaw bisub tey bi loolee mbokk yonente bi alayhi salaam tegu ca ñetti weer tegu ca ñetti weer wuy ji boroomam te it sahaaba yi gëmoon nañu ne yonente boobu doon ñu dajeeg moom lu dul ci àllaaxira daa na leen wax sama rendez-vous ak yéen mooy jéeg ba ma yàlla may ci àllaaxira loolu it muy safaanoo ak ñun li ñu dund ay junni ak après mooy ay doomu aadama daal di saxal ni yonente yàlla bi day ñëw na daje naag sab sëriñ jox na ko nangam jox na ko nangam jox na ko nangam loolu lay sahabatul kiram kenn mosu ko caa wax taabiina kenn mu ko mosu ko caa wax génération ya tegaloo tegaloo tegaloo kenn mosu caa wax ne yonente bi alayhi salaam dellu si war na ci man wax ma nangam ak nangam ci samay diine lii mbokk mooy la nga xamee ni nii moom la yonente bi alayhi salaam wax ba pare daa dina nag ay yéen mbooloo mi képp ku dégg lii naka jottali ku ko déggul képp ku dégg lii naka jottali ku ko déggul looloo tax mbokk sahabatul kiram boo xool seen histoire dëkk yi gën a tedd ci kaw suuf mooy Makka ak Madina waaye ña fa dee matul sax presque dix pour cent dañoo tasaaroo ñii jaar Iraq ñii jaar Syrie ñii jaar Afrique ñii jaar Inde ñii jaar fu nekk di ndasaare kaddug yàlla gi ndax xam nañ ne amul lenn lu gën a màgg lu doomu aadama bi taxawee ci kaw suuf lu tal na jottali kaddug yàlla gi waaye nga la waaye it boo génnul sa réew foo mën a nekk ca kër ga ca usine ba ca marché ba nga la waaye lépp loo xam ne lii diine la ju yàlla tegoon ci loxo yonent bi alayhi salaam ba mu jottali ko yonent bi alayhi salaam nee na jottali leen ma bal nee na balligu anni walaw aaya jottali leen ma même bu doon benn aaya même bu doon benn xadis même bu doon tere nit ki la gën a néew ci lu bon digal ko la gën a néew ci lu baax lii la yonente bi alayhi salatu wasalaam tàggatoo ak xeet bi loolee mbokk yal na yàlla subhanahu wa taala fayal na ko ñu ni day ñu ngi seede ne la ko yàlla yónnee woon mottali na ko la ko yàlla wóolu woon joxe na ko te it laay ni diir gën jaa màgg ci ilaayi biir yal na yàlla saxal ñu ca lam bàyyi woon ay saxaabaam yal na yàlla dundal ñu ca lam bàyyi woon ay saxaabaam bis bu ñuy faat yal na ñu faat ca lam bàyyi woon ay saxaabaam yal na ñu yàlla dekkal ci mbooloo mag mbooloo mi saxaabaam ya nga xam ne ñooy dugg jëkk a dugg àjjana bi rëy xisaab yal na yàlla defal ñu aafiye fi dunia wal axira yal na yàlla boole waat xolu julit ñi yal na yàlla delloo waat ci njàngalem alquran ak sunna yal na yàlla waat ci ñun aafiye fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين